falee Diomaye ak président Sonko lan nga doon xaar yow monsieur le euh, ministre mu ne ah ci sama xel de njortoon naa ne dinaa jóge waar Russie ñibbi si Sénégal mais mosumaa xalaat sax nit ñi xam nañ ma xam guñ may jële sax di wax ak man ba may fal dégg nga dinaa ci ñëwaat am na ministre bu ñuy wax ma Mabouba Diagne di ministre bi nga xam ne moo yor agriculture conseil de ministre ci la njëkk a gisante Sonko ci la njëkk a gisante ak Bassirou Diomaye Faye amantewuñ mbokk amante wuñ xarit amante wuñ ay wëllëre amante wuñ ay numéro téléphone CV ak jaar-jaar buy wane ni kii borom xam-xam la loolu moo tax ñu recruter ko dugal ko ci biir nguur biir biir gouvernement am na ministre bu ñuy wax Ousmane Diagne di ministre de la justice bi ñu ko bëggee fal man am naa ay écho dañ doon woo ay avocat pour laaj kan moo am numéro am pour ñu contacter ko ba xam ñu mën koo consulter pour def ko ministre amul benn relation bu mu am ak Bassirou Diomaye bés lee mooy maron bés bi mu séq ak waa parti Pastef kenn taw wóor na ma ne ci conseil des ministres ci la njëkk a gis a Diomaye ci la njëkk a gis a Sonko mais jaar-jaaram ci sistisu su Sénégal moo tax ñu am preuve que ne kii ku jubla manees na koo dugal ci gouvernement ñu jël ko dugal ko mu mu liggéey noonu laa ko mën a waxee ci ku mel ne Abdourahmane Sarr mi ko ministre économie su fekkonte ne dañuy xool sax ci côté position politique mën ngaa wax ne position politique yi mu doon jël ak yi Ousmane ko nekkoon dañoo opposé wu waaye gis-gisam ci wàllu économie ak gis-gis bi Ousmane ko am ak Bassirou Diomaye fay muy programme Diomaye président dañoo dëppoo ñu dem jëli ko nii xamante nii relation nii dara ñu jël ko dugal ko ci biir gouvernement muy liggéey lii ma wax nii ay tur laay tudd ay fee wax ku ko mas a gis ci senegal ci 1960 ak tey na ko wax loolu kon bilan la mooy sénégalais yi jox la seen réew yow leer na na le Jean Baptiste Tine boo ko ne woon dama la indi juróomi nit ma def la ma def la ministir amuk amuli nit parce que ku dund 60 ans ba retraité mësoo def politique mësoo def réunion politique xamoo luy militant xamoo nu ñuy wutee militant kooku kenn falu la pour nga mën a def benn récompense ci wàllu politique loolu mën naa ko boole ci bilan immatériel bi nga xamante ne Sénégal am na ko ci 100 jours yii te xamuñ ko woon ci réew mi loolu nag Jomaay Fay doxale doxale ko muy bi ñu xeexee ba jël affaire bi teg ko daf ne lii de xam-xam laa koy joxaat waaye du ma ko séddale kii moo sonnoon kii moo sonnoon kii moo sonnoon nii laa koy séddalee kon bu fekkente ne poste bi moom yow boo ñëwee transhumé tamit transhumé indaale seen waa dëkk taxul nga jol poste kon doo transhumé parce que kuy transhumé poste lañ la di ministre wala DC wala nga yaakaar ko fa loolooy tax nga jël say nit. jël say mbootaay ñëw seet si président ne ko ñëw na toog ji xaar waaye bu fekkee président dafa ñëw dagg cordon ombilical boobu mooy fal ñoo xam ne amuñuy nit nañ waxante dëgg mën naa laa wax ci vingt cinq ministres yi nekk ci gouvernement ba Bassirou Diomaye fay bii bu ci dul Birame Souleye Diop kenn miinu ci gañe kenn ci ñoom miinul gañe El Malick Ndiaye dafa perte locale perte législative fam dëkkoon terewul compétence ak xam-xam may na ko mu nekk président mu nekk ministre Abdourahmane Diouf dem na local defe naa demul local mais dem na législative xam nañ lam am dem na wuti parrainage ci li ci présidentielle bi amut mais niveau xam-xamam moo tax mu mu nekk ministre parce que dafa am lu mu bind ci enseignement supérieur monsieur le président de la république gis ko daa di ne kii de lii mu bind nii dama koy jëli ñëw mu doxal ko mu wuute ak liñ xamoon ci président Macky Sall parce que agri agripole yi président Ousmane Sonko moo ci bindoon deux mille dix huit ci élection deux mille dix neuf programme am dem leen xool ko Macky Sall gis programme bi Macky Sonko am ci agripole yi mu daa di bàyyi ba ñu def élection ba noppi deux mille vingt et un mu ko daal koy sàcc daal koy def. agripole yooyu sax dinaa ci ñëw parce que yaakaar naa ne yëgu leen ne am na ku fa nekk lu xoromu la nag waaye waa APR sañ nañ lépp koo xam ne président de la république dafa bind décret conseil des ministres wàccee ko moom mu ne wàccut <laughs> waaw nee na wàccut de ñu ne dañuy def dañuy def dañuy def euh, passation de service démb la woon de ki muy defal passation de service ànd ak commissaire bi koy installé ñu yegg mu ne moom yëgul woon ne wàcc na waaw nee na daal moom mënut a demee noonu daal <laughs> waaw mooy mooy mooy DC général du agriculture yi ñu koy wax Djily Mbaye Lo dinaa ci ñëw nag parce que bu ma ci soree day yàq sama waxtaan te loolu yëkkatiwu ma <coughs> waaye Abdourahmane Diouf bu doon ay nit ak mbooloo yafe naa ne Sonko du ko jël di ko dugal ci gouvernement mais xam-xam ak dayo moo tax ñu mën ko recruter dugal ko ci biir gouvernement ni ko ñëwal nga liggéey niki noonu noonu laa ko mën a jële kon Sénégal da daan def bu ñu tollee fii dañuy def partage gâteau maa am nit ca Louga maay jël ministre bii maa am nit Bambey maay jël fii Aminata Tall moo nekk Diourbel mooy jël fii euh, Iba Guèye moo nekk Mbacké kaay jël fii Moustapha Cissé Lo Touba yaa yor lee ñi jàngut sax nga xam ne mënuñoo falu dañuy am quota daal di jël seeni mbokk roof ne sama najaay la am na xam-xam kii sama bàjjan la am na xam-xam ñu dugal man de yaakaar naa ne président bii fi nekk bi ñu faloo ak léegi gisaguma benn kenn koo xam ne maa am na quota yaakaaruma ko kon ana quota yi ndax ba Ngom de yaakaar naa liggéey Mari Sagna daj pour Bassirou jomaay fay toog fii mu toog Farba Ngom daju ko pour Macky Sall falu Amadou Ba Pastef li mu daj pour gii pour pour Jomaay Fay toog fii moo nekkoon mandataire am Farba dajul genn wàllam pour nekk pour pour président Macky Sall toog Farba Ngom da doon falu DC di ko dàq di fal ministre di ko dàq léegi kon lan moo tax boo masaan sonnal Macky sàll même bu doon ab nilaar bu jàngun nga sax ñu ne la demal woo sa bàjjan ñu fal ko ndax yaa sonnoon tey jii dem leen xool biñ falaw 100 jours yii est-ce que est-ce que Guy Marius Sagna coono bi mu doon sonn pour Diomaye Faye falu may na ko privilège yu mu amul woon wala déet dem leen xool Amadou Ba Pastef ba xam am na ko wala déet dem leen xool Abass Fall ba xam am na ko wala déet foofu nag dinaa ci taxaw tuuti parce que doo xam ci ñett yi ma wax kan nga war a gërëm sax muy président Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne bi ko falee au lieu que mu jël mbir mi def ko partage gato mais daf ko jël doxale ko noo xam ne nii opposition bi sax amul lu ñu wax doo xam moom ngay gërëm ak pasi ak ak ak monsieur le ministre euh, président Ousmane Sonko wala dangay gërëm sénégalais yi nga xam ne woo nañ leen ci engagement pour ñu ñëw liggéeyal seen réew ñu nangu parce que tey ku mel ne Jean Baptiste Tine mii ma tudd man wax na ma ne biñ ko nee kaay nga ñëw nekk ministre. daf ne waaw man politique ah waaye de bu doon mu ne bu doon politique de ñii ma woo nii ne ma kaay liggéeyal Sénégal duñ ma woo parce que man politique gu ma tax xamuñu ma kon woowuñu ma ndax politique waaye daal ne waaw man ma dem ba retraité nii ba am samay tool war a bay ñu jékki-jékki bëgg maa dugalaat ci ay réunion ay conseil des ministres ay xëy liggéey ah waaw man téema toog rek ba continuer sama mbay mi waay uuf liir uuf samay doom liir samay téere daan ne déedéet ñu def sacrifice bu toll nii xamuñu ma xamuma leen ñi romb sénégalais yëpp ne man maa leen doy nañ leen ñëwal ñu liggéey may xool samay tool ak samay doom duma ko def sacrifice bi Sonko ko def Diomaye def ko sacrifice boobu laay def daan ne nangu naa Mabouba jaañ man barki démb laa jógee Lomé fam dog fa mu nekkoon bureau ba mu nekkoon banque bi mu yoroon di ko jiite jàpp naa ne moo dàq fuuf doon ab ministre nga jël engagement ñu woo la nga bàyyi sa privilège yëpp ñëw engagé wu di liggéeyal Sénégal loolu tamit dañ la ciy gërëm ku mel ne Ousmane Diagne tey liggéeyal na Sénégal ba retraité te li ci gën a neex mooy ay Ousmane Diagne ay Jean Baptiste ay colonel biram Diop Birame Diop tamit ci ñi nga xam ne amuñu woon benn relation ak waa Pastef ci la bokk ñu jël ko jox ko forces armées te forces armées c'est la première fois ci histoire du Sénégal ñu jël forces armées dénkaat ko ab général ay dentiste ay yooyu lañ ko daan dénk waaw loolu moo fi nekkoon ñooñu Sénégal da leen a naroon a perte parce que ay nit yi dëgg lañ ay Serigne Gueye Diop Sénégal mënoon na leen a perte ba faw Sénégal da doon perte Jean Baptiste Tine ci xam-xamam ci njubam ci expérience am ci léppam da ko doon perte da doon perte Mabouba jaañ parce que da doon dem génn di servir yeneen i réew bàyyi sunu réew da doon perte ku mel ne euh, Ousmane Diagne mi ministre de la justice parce que demoon na frigo ana ay Souleymane Delico ñi juboon ci justice bi ñëpp Sénégal da doon perte ñu génn ki li leen jëlaat indiwaat leen ba Sénégal man leen a bénéficier woo mën leen a jariñoo loolu mën nañ cee gërëm Basirou Diomaye